intérêt crypto personnel. Mhm. parce que bi fi nguur ga la nekkee dañ ci gisoon seen bopp. Mhm. nguur gi fi newoon. Mhm. ñoom dañ ci gisoon seen bopp. di noos. ak seen i njaboot. boobu am na ñoo xam ne boo demee mairie Thiès ci mbedd bi la ñuy fanaan amuñu fu ñu dëkk. amuñu dëkkuwaay. amuñu ñaari téeméer yu ñu joxe dépense. ñoom ñu jàpp ne daal loolu mooy continuer di wëy maintenant bi ñu demee ba xam ne seen i intérêt se menacé ñu gën di wax dañu wax. ñu xool fan lay mujjee. fan lay mujjee. Mmh. n'est-ce pas. alors important jërëjëf Thioune. macha allah Cheikh Ahmadou euh, pour additif ci li Thioune di wax. maa ngi ko doon wax sànq ma ne. Euh, Paul avocat. kooku ki mu fi wax léegi nii lépp lépp est-ce que jaroon na itam porte itam plainte wala wala jar na ko. Euh, Cheikh Alioune Sall borom dafa wax ne. nit ki fexeel looy wax mbaa looy dox mu jariñ la mm-hmm. boo ca gisul njariñ bu ko dox te bu ko wax mm-hmm. Cheikh Al nee na fexeel ba loolee boo ca doxee guddi boo xëyee ba set mu jariñ la mm-hmm. boo ca doxee bëccëg balaa ngay tëdd guddi mu jariñ la waxi ma jambal amul njariñ turam bi jëfam yi leneen ak leneen ñun jariñu te ci loolu gis nga nit ku la matul noonu matul la nawle matuñu noon ba ñuy mat nawle xol yi du benn taxawaay yi du benn jëf yi du benn ndax li woon daa woon ni teg pression ci état ngir am dara <laughs> loolu jeex na Sénégal de koo xam ne boo amoon sa tu tànk mu leere ni kii doo ko tuddee kooku bul perte ci moom ñaari minute wala ñetti seconde maintenant le premier ministre Ousmane Sonko est un sénégalais bu fi juddoo am fi ndey am fi baay am fi ay mbokk am ñu ko bëgg. jàngee fi liggéey fi jàngee fi liggéey fi jëriñ réew mi. gars yi il faut ñu xam ne rupture bi gars yi di wax pap sénégalais yi nañ ko consommé mooy fracture sociale boobu ma wax day jeex injustice day jeex ci réew mi injustice du rek jël nit di tëj de kàddu sax ci la bokk tuumaal gor dafay jeex yoon wi ku ko wàcc walaay dina la si tegaat ça se comprend parce que sont en train de vivre leur dernier soubresaut xam nga nit nag mënoo koo tër di ko kii ba pare ne du weexu da ko koy may waaye nag am na ci foo xam ne faw ñu yegg fa mhm. mooy jibi les sénégalais sont fatigués mhm. ci yenn débat yi waaw ci yenn sujet yi surtout ça au moment où je vous parle gana gu jege gii boo demee il parle benn lancement d'appareil spécial bu war a dem et nous on ne parle moom lay rejoindre on parle de ces gens là tey am na koo xam ne Abdoulaye mi ngi ci biir lalu hôpitalam tëdd jënd connexion di Sénégal di Sénégal 7 xam nga lu muy xaar ñu wax ko lu ko fay jëlee baykat ba ne ci tool ba mi ngi xaar ñu wax lu ko fay jariñ donc débat ma jàmbal yi man personnellement c'est ma conviction personnelle man du ma ci soliloque ni ko tubaab di waxee mais nag faw ñu xam ne changement bi dina am. Mm-hmm. changement bi ni muy amee mooy dootuñu bàyyi ku jug tuumal gor ba pare dem tëdd nelaw loolu xewatu fi de nga bokk Pastef nga bokk APR nga bokk feneen a ci yem justice bi pour sénégalais yëpp la ku sentir ni tuumaal nan la demal ci yoon yoon topp ko maintenant damay ñëw sànq Abdoulaye daf ko junju Pape yeggali ko lan moo tax ñu démystifier nguur ñëw ci lan moo tax Pastef nguur bu ko gaa yi tegoon seen bopp yi ñu ñu teg ko ci suñu suñu baaraamu tànk bi suñu baaraamu déy bi lañ ko deg buñ solalee ñu ne ko nii avancé parce que dañoo xam lan mooy yorum réew. Hmm. le premier Ousmane Sonko nee na même la terminologie nguur nañ ko xoolaat hmm. ndax ku ñu dénk mbir. serviteur nga war a doon que buur malheureusement traditionnellement indi na ñu buur indi lu nguur indi lu pouvoir te xamuñu ne suñu borom a ci fekk as lëf jox ñu ko ngir ñu diriger li nga xam ne moom mooy ci dëkk bi donc du lu ñu moom waaye des na ko yor pap ngir mën a jariñ nit ñi ñun dafa am fu ñu wéeru seen président Ousmane Sonko bi ñu ko laajee kan mooy sa référence ci diine mm-hmm. ak ci politique dafa ne gën di mu def sallallahu xam ne sunu borom da koo tagg maa kaana muhammadin aba ahadin min rijalikum way naka la ala xuluqil azimi wa ma arsalnaaka ila kaafatan linnaasi wa ma arsalnaaka ila rahmatan alamin ñun suñu mode de gouvernance dañ ko jëlee ci diine moo tax yanu wunu nguur xam nga kan mooy le père de la bon gouvernance Omar ibnul Abdou Aziz bii mu wax sànq. te nekkoon misra ba muy jël nguur trente cinq ans la am. bokk ci ñi nga xam ne tey ji ñoo waroon doxal di Bani Umayya keroog buur ci pale la juddoo fala yaroo ki nga xam ne moom mooy buur ba tuddoon Souleymane joxoon ko li nga xam ne moom mooy nguur gi bi nu ñëwee jox ko nguur gi bis ba nga xamee ne moom la ñu instrué Souleymane war a génn jamono bind ab lettre am kum ko jox ne ko lettre bi damaa bëgg nga dencal ma ko waaye ki nga xam ne ëllëg su ma génnee àddina wool ñëpp daje nga lii lettre bi ba mu génnee daam ko ko ndax bëggoon nguur ne ko est-ce que sama tura ci nekk Omar Ibn Abdou Aziz moom it ko ko ndax bu ci sama tur nekkee waxal ñu faase ko ndax man bëgguma doon duur keroog ban ko instruire ci saa si moom moo instauré ce qu'on appelle la bonne gouvernance ni mu ko defee mooy Omar dafa ñëw taxaw ci buntu pale bi ñëpp di ko way ñëpp di ko tagg mu leen dakkal leen ko ba mu ne leen ñu dakkal ko mu jékki-jékki gis ay soxna yu bari di défilé ci kanamam jëru njaase Omar ne ñii ñan la ñu ne ko ñii de mooy ñi liggéey ci pale bi sa waaw la ñuy xëy sa waaw la ñuy gont mhm. loo wax la wax loo wax mu ne bis ni tey libéré naa ñëpp ne ñëpp dem seen kër mhm. xam nga loolu mooy lan la rationalisation des dépenses Omar ñu indil ko fasu or Ibnul Abdul Aziz ba tey maa ngi ci Pastef de damay wax ñun ni ñu comprendre nguur Omar ñu indil ko fas gawar gi yëpp doon ay or ñu ne ko yéegal ci fas wi moo lay génnee ci kër gi moo lay ci kër gi dugal la ci pale bi Omar na évaluer leen fas bi ñu évaluer ko muy sàngam ciy dinaar ak seeni xaalis Omar na fas bii de damaa bëgg li ciy or ngeen jaayal ma ko yóbbu ko ci baytimaal baytimaal mooy trésor ndax c'est bien commun donc man mii di Omar Ibnul Abdul Aziz waruma koo jariñoo man kese. Mhm. Omar indi ce qu'on appelle la reddition des comptes taxawal un un tribunal ne yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal famille ñëw leen ñu waxtaan ana kan moo ci ameel dëkk bi ay magam ak i rakam doomi bàjjen ak doomi nijaayam ak baayam mu leen ku yoral fi nga xam ne moom mooy réew mi mooy dëkk bii nga xam ne moom laa doon ci xilaafa gii ma ne na nga ko fay lu ko mooy ñu jàmmaar loolu mbokk ya tëx ñu ko déglu Omar teg sañ-sañ indi tribunal bi ne yéen ñëpp la ñuy jugé ba leen jugé dañoo récupéré waat ko pare indil ko Omar Omar ne da pour man na dem ci baytimaal baytimaal mooy trésor Omar redynamiser ce qu'on appelle l'économie ngir wax la ñun philosophie Pastef bi ñu am ak ni ñu sampee suñu yëf ci diine ak ni ñu comprendre la bonne gouvernance Omar tàmbali ci njabootam soxnaam da daan takk oy or njabootam di takki or ñuy lekk lu neex di solu rafet mu ñëw ba ci ay soxnaam ak njabootam ne leen bis ni tey mayatuma fi koo xam ne boo génnee di nga sol luy différencier ak peuple bi ngir won la ni ñu oyofalee nguur mhm. waaye Omar yemul foofu Omar daal di redynamiser l' économie ne bis ni tey économie bi nga xam ne moo fiy nekk ci trésor baytimaal bi ku bëgg a jënd ñëwal ñu financé la waaye boo paree nga fay xam Omar ñaata temps la yor réew ma bi mu koy ñëw addis bi mi ngi indi ne da ko fekk ci bekkoor maanaam ci kekk kekk boo xam ne nit ñi benn yére am ci réew mi mhm. wala ci dëkk ba waaye ña ko yor dañuy bari ku ko soxla da ngay ñëw àbb ko paap Omar deux ans cinq mois la yor nguur ga boo yoratee loo saraxe doo am kooku sarax ndax ñëpp a développé ñun loolu nañu comprendre bonne gouvernance ñun Pastef d'accord c'est possible le président Ousmane euh, Bassirou Diomaye Faye le président Ousmane Sonko xoolaal même seen accoutrement seen type d' accoutrement le président Bassirou Diomaye Faye li may sol lay sol ñoo bokk benn mètre tissu noonu la demee pour vous dire que ñun xam nañu effectivement lan ak lan lañu ñu yi di xaar xam nañu ne xaaruñu ñu ci luxe. waaw sa bi parce que. xaaruñu ñu non dañ ma koo àll xaaruñu ñu xam nga yaa may dégg ma yeggali. xam nañ ni xam nañ ni xaaruñu ñu xam nañ ni xaaruñu ñu ci ñu won Sénégalais yi ne. jet privé luxe la parce que ñun suñu luxe dëgg-dëgg fi mu nekk moo ñu fexe ba jibi Sénégal la dootul xiif Sénégal la dootul mar dëgg samp ci réew mi ku amal réew mi fay waaye bu ñëwee ñu def ni Omar defoon faire la redistribution des ressources fexe ba loolu ñu am loolu dem fu ne fexe ba hôpital yi taxaw mm-hmm. fexe ba ndox mi yegg fa mu yegg fexe ba sénégalais bu ne sa sant honoré d'être un sénégalais. c'est ça mu boppam. mu am fierté ñun loolu mooy suñu cëslaay politique boobu moom la Pastef indi à travers le projet. Mm. avec ce tandem le président ba Bassirou Diomaye Faye fay son premier ministre Ousmane Sonko moo tax ma lay wax ne mm-hmm. sénégalais yi nañu dalal seen xel mm-hmm. yàlla xam na ni naataangee ngi ci kanam di ñëw. xam nga lu koy indi. lu koy indi jéego yi ñu teg. Mm-hmm. samp ko ci jub samp ko ci jubal samp ko ci jubbanti. ndax loolu mooy doxal li nga xam ne par exemple moom mooy Sénégal. c'est important alors tuuru table laay def euh, ma ñëw ci Ndiassé parce que mooy Ousmane Sonko mooy premier ministre actuellement mu ngi ca Rwanda teewal fa kan le président de la République son excellence Bassirou ca xar Faye